suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ni su ko yi doon jar doonaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. mel na ni ah, loola yi xam baat yi yëpp nangu nañ ko te santaane ko ñaan amul waxtu léeg-léeg bu nit faatoo ñu defal ko ñetti fan defal ko juróom ñetti fan defal ko ñeent fukki fan defal ko anniversaire loolu yëpp dara du ci charia sharia xam na ñaan waaye xamul bëtu ñaan bët boo ñaan rek baax nit bu faatoo liñ gën a sopp mooy nañ ko gaaw defar ko denc ko loolu alfana ma danaa defu faax baraku bu faatoo rek denc na amu yaakaar li tax nag mu wax lu mel mooy ñu baax ñi ñoo tax ndax ku baax ku war a dem àjjana ko kenn waru te it boo ko yéexee moom ci boppam mu ngi ñëw di la soññ pour li nga ko defal la daaw parce moo ko dàqal fi mu moo tax jullit bu faatoo kenn ko yéex loo mën a gaaw rek léeg dañuy jàpp ne ragal dee la léeg dañuy jàpp ne suñ ko bàyyee bu yàqu la waaye loolu sunna la yonent bi moo ko santaane mu ne nañ ko sang nañ ko sang nañ ko jullee ñu bëgg ne fi ñëpp kuy julli ñaari jotaay yi moom lañ bëgg nga fekkee ko mooy nit fi ñu koy jullee ak fi ñu koy dencee ñaar yooyu dafay xam li ci des yëpp bu la neexee bu ko fekkee bu la neexee bu ñu ko dencee bu ñëw bu delluwaat kër bu la neexee foo toll mën ngaa jaay ñu bari yaakaar nañu boo demul ci dëkk mënoo jaay islam moom dafa woyal parce que foo toll mën ngaa jaay boo jaale dee fa nga jaale bu fa toog topp ñu ko bu fa toog di xaar leen bul fa toog di xaar naan jaale ji nga jotali nga sa wala yet ndax jaale soppul nga yóbbaale dara pour dimbale ña fa fekk boo defee loolu ngay def rek sa waaye comme dañ dem ba gis ne ànd dafa dox te ñu bari dañuy dem toog wala ñu jugee fu sori te bu ñëwee danañ toog man ñi ci seen xikma ñu ne leen jàngkat yi pour benn waxtaan ak bu fàttali nit ñi ci wàllu dee loolal bu ñu ay jotaay waaye képp koo xam ne boo ko toogee da ngay wax leneen gaawal nga jóg ko ci bu fekkee résultat yi bu nit ñi dajee ci leneen la ñuy waxtaanee ci lu dul dee ak yàlla ak l'islam lañ tax jotaay nit ñi waaye fu ñuy sàngee moom fu nit nekk bëgg nañ mu teewee fu ñuy sàngee nii fu ñuy jullee nii fu nit nekk bëgg nañ mu teewee bu ko mënee teewee fu ñu koy suulee fu nit nekk na ko teewee ku gis nii boo soogoon da nga jóg ngir màggal ko ne Jésus sallallahu alayhi wa sallam moo ko def def na ko benn yahud yaay ne ko kii yahud la mu ne xanaa du nit kon nit la mu màgg loolu lañ koy defee buñ ko dencee ba noppi nañ ci toog a ñaan léeg-léeg nga gis nit ñu bari buñ suulee rek yàkkam ci saa léegi naa dem ba man sama bopp sax fàttali yi ñuy joxe ak jëflaat yi du ma ànd ak nit ñi ndax bu ñu nee def leen fukki jëflaat yow balaa ngaa def yëpp pare na bu fekkee nag néew bi loolu yaakaar bu baax moo tax boo mënee defal sa bopp sax defal sa bopp defal sa fàttali sa jëflaat ñaan moom loo ñaan rek baax na amul fukki jëflaat ak benn amul ñeent amul dara loo mën a ñaan rek ñaan bu doon fàttali baax na bu doon ayati baax na bu doon xalaat ak naati baax na waaye daal da nga am fàttali ci yeneen njëriñ rek alxuraan la day dem te danga ci jot it nag kon lii soo ku leen ku ñuy denc nga jàngal ko suuratu Yaasin moo xam ba mu faatoo wala bu ñu koy denc rawatina soo ku leen ko lool bu ñu ko dencee ba noppi jotaay bi mu ne yàgg nga yàgg sañ ko dencee ñaanal jarul yàkkanti ñu bari dañuy yàkkanti waaye jarul bëgg nañ ko ba toog bu mënee yàgg day yàgg ñu ñaanal buñ ko jógee nag pour neex na nga ji ku delluwaat ko bi yow rek su ko defee nag ñetti fan nag ak juróom-ñetti fan nag ak ñeenti fan amul sens am na nag lu ko ci dugal la ko ci dugal ci xikma ñu bari sax dañ ciy saboté ñi koy def ba naan ah, noonu la ñu doon def ca eh, eh, Misra muy Égypte nga xam ne bu nit te li ñu ko def jéggi mooy li ñu tuddee momification bu ñu koy def quarante jours lay julli ñu door ko suul comme noonu ñu daan suulee léegi nag ñu ne kon néew ku koy ñaanal quarante jours loolu ngi ci dugg waaye ñi koy def dugg ci doom daa am ñu ne bu nekk ci defee ñetti xam ci biir bal bi ñu ci lay toog waaw ah, loolu daa am yoon bu defee juróom ñetti xam sax di ko lekk bu defee ñeent fukki fan yàpp yi jeexu ci suuf yàqoo ko fa rek loolu lañ ko waxee ñu ne comme nag période yooyu lañu mel noonu ci xew noonu ñu ko waxee ñu ne kon nag baax na ñu ci ñaare ñu jiite dërëm ñii ne daa am ñoo xam ne dañu doon ñaan bu nit ci faatoo boo jullee alxaq mu takkala ko bi yàlla mën na laa may ci faatoo bu gis ko xam ci ba xaamu ne ok ñu bëri dinañ koy def kii fan la ko yàlla denc boo defee benn fan ñaari fan ñetti fan benn fan gisoo ko ñaari fan gisoo ko li ci ëpp ñetti fan doo ko gis yàlla waral fu mu ko def amul nekk bu sottiwul nga demaat juróom ñetti fan doo ko passé te gisoo ko yu mel noonu noonu moo ànd kon nii la su ko defee nag ku bëgg ñaan moom waxtu bu ne mën ngaa ñaan saa su ne mën ngaa ñaan foo toog mën ngaa ñaan te xam ni koo ko defoon dana ci jot te ña nga koy defal soxla nañu waaye loolu nga leen di ñaanale yow it noonu lañ lay ñaan ah yow ni nga leen di ñaanale yow noonu lañ lay ñaanale te mën naa yëpp leen ñaan gën a gaaw gën a baax gën a wóor parce que nekk na xam nga ñaanal ku nekk àjjana ku yàlla yokk leer nga di ko ñaan nu mu dina ñaanal ñaanal mu gën a wóor sa bopp gannaaw ñaanal mu gën a wóor sa bopp ndax aw nekk tax te moo la gën a jege yaay te moo la gën a nekk ci dëkk kon nag macha allah kon dëkkee ñaan am na solo kon nag yàlla yàlla na mu jiw li ci topp nag mooy li ko Assane waxee xam naa ni ba liñ ci guddal liñ ci bëgg a guddalee ndax day ñëw mu yaatu waaye rek ñu xam ne jamono moo soppeeku te day gën di soppeekuy dem ndax dañu dugg ci lëndëm bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bët dañ julli takkusaan ba génn jant bi sox ba mu des tuuti mu sax moo saxaaba yi ne leen gis ngeen jant bi def mu sopp ñu ne ko waaw mu ne lu toll nii moo def ci àddina pour mu tukki waxaat feneen ne bu aytu bayna yaday saa man bi ma yónni yomal xiyam daa def loolu yëpp la ne la man bi ma yónni daa fekk yomal xiyam daa taxaw bi si yonent bi jógee léegi nag ñu ngi ci mille quatre cent quarante deux ans te boobu la ne jant àddina mu ngi sopp kon war nañ xam ne heure bi ñu ci dënd ku ci demoon di alxuraan léegi dootoo ko jàng ay jéego yaa ci kër ci biir bu gàtt gàtt ci kam dootoo ko jàng ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wala yusri bi kitaabillahi te leen si waax na nee na nit ñi dañu lay bënn bët yeewu rek ana alxuraan kenn du gis alxuraan loolu yëpp moo ko wax gars yi ne leen waaye yonent bi nee na bët a ngi ñëw ci biir bët yi dañuy yeewu xool alxuraan doo leen gis alxuraan ana alxuraan ñu ne alxuraan yàlla yéegal na ko asamaan ku ko jàngul tey léegi dootoo ko jàng ku yëngu leen jàngi ko nii ku julliwul tey léegi dootoo julli ndax yàggul ñu ngi nii julli jafe yi te danañ def doomu gën a koor noonu aji màkk noonu léegi mu gën a jafe commencé na léppay jafe loolu ñu tuddee jaamu yàlla dana jafe génn dem ci jàkka ji dana jafe loolu nag balaa ñu caa àgg sax àgg nañ sa ba noppi sax yow mi defee tuuti ngëm defee tuuti lislaam di woote sa bopp ak jullit ak taalibi boo yëgoo gën a góorgóorlu te xam ni àddina dara ñoo ko daal boo tuubutoon gaawal tuubi boo jaamutoon yàlla gaawal jaamu ji ndax it ñiy yàq dañuy gën di xam nga bi ñuy wax li ñuy wax ci franc-maçon yeeg yu ñu mel ak yàqu-yàqu yu bari ñeneen ñi di ko wéddi naan yàlla du seetaan Cheikh Tidiane Al Maktoum dafa waxoon ne yàlla seetaan la mu gën a garaaw loolu yàlla seetaan la tey daan nañ ko def ci ay waxtaan boo xoolee xiste yu doon ci yàlla Moussa Firaaw na li mu rey ci ay nit te ay liir la buñ juddoo rek nekk ay liir rek boo juddoo rek waaye te rey na ci li ñu tolloo cent cinquante mille wala mu jëm kaw te yàlla daf ko seetal première guerre mondiale yàlla daf ko seetal am na près de cinq millions de morts deuxième guerre mondiale yàlla seetal mu am am na vingt millions de morts officiellement waaw kon nag est ce que mënut a seetaan da ngeen yàlla dara ko soxla li lay metti ne suuf yaa moom dara da ko soxla moom li mu bëgg rek la parce que day yaay. safara bee nga daa def saful yàlla bu saful yàlla kon indi ko fi waaye moom daa jàpp ne saafara yow la bëgg rek moo tax bu fekkee jàng lu tuuti te xel sori da ngay gën a ragal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu am ci jamono fii ñu toll ni yonent bi daf ko wax bàyyiwul dara dee bu bari ni yonent bi moo ko wax lakk bu bari ni yonent bi moo ko wax feebar yu bari yonent bi moo ko wax góor ñi di gën a néew yonent bi moo ko wax jigéen ñi di gën a bëri yonent bi moo ko wax danañ dem ba benn góor quarante jigéen moo ko wax ak yu bari bari bari ba ko topp ci xam naan engrais njaalo bi ah yu bari bari yonent bi moo xam boo ko toppee du jeex juif yi moom àddina ñoo ko mos a moom yàlla dafa leen juif yi yàlla dafa leen moo ko jagleel àddina ñu moom ko yëlif ko ñun ñii lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jógee ko fi yonent sax xeex na ñoom mu jógee ko fi ñëw dugg ci biir dina lislaam di jaxase di jaxase jaxase yooyu moo ñu topp ba tey yàlla moo leen mos a dooleel moo leen mos a cëral moo leen mos a may xam-xam moo leen mos a teg ci leen teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni nee na dajjaal buy ñëw jamono nee na bu génnee soixante dix mille juifs ñoo ko jox ñooy dox ci ginnaaw lu dul def julli ñi amul xeetu toroxal bu ne danañ ko tax mbugal mu ne danañ leen ko teg loolu la ñuy nekkee ak ajjal xemal xis mu nga cànni te yi gis àddina yëpp nag moo tax boo déggee gouvernement mondial nga ni mën ta nekk mën na nekk yi mën nga ko wax yonent bi te dana yii ci jamono te ñëw dajjal dana ba jamono amee ba léegi lu gën a métti ñëw nga jaar ci kaw suuf yéen dina ne du am te bu ñëwee dañ la def àgg ba képp yilif ñëpp te du bàyyi kenn lim bëgg rek ay am loolu boo ko jàngee da nga gis nee na day yor loxo ndeyjoor bi day yor ndox loxo càmmoñ bi day yor saxaar waaye nee na da ngeen def ndànk nag li ngeen di gis mooy ndox mi mooy doon saxaar li ngeen di gis yaakaar ne mooy saxaar te mooy doon ndox da ngeen di wax loolu activité dajjal ñu tuddee ko le trompeur ak dajjal mooy le trompeur kii naxaat bi ñu nii naxaat ndax kii naxaate kenn ku la bu doon nootee ñëw gën ne kenn du wàll rek vaccin yi moom wax nañu gën su ne vaccin yi day fab da rey fajul day fajul tëdd puce la rek ni ngay jëlee sa téléphone ko manipuler loo ci bëgg mu defal la ko noonu lañ ne injecté puce boo xam ne dañ koy def ci sa yaram luñ la wax nga def ko loolu mooy vaccin am na ñu ko fi def boobu léegi amagul am na dix ans quinze ans vaccin bi bii am na quinze ans ci ginnaaw vingt ans def nañ ko bu yàgg toog di xaar feebar bi lañ doon xaar ak moment bi ñu koy sànni parce que bu ñu ko sànnee ñëpp nañ ci ñoom moom média yi buñ ci gën a ñu dañuy gis nag ñu génnee vaccin bi nag vaccin yi pare na rek dinaa la vaccin yi au moins cinq mois vaccin yi pare na mu yàgg bañ ay nekk ko mu bari dañ bëgg def nit ñi ay jaar loolu yëpp waxoon nañu ko pour contrôler nit ñi kuñ bëgg a wàññi wàññi la kuñ bëgg a dagg dagg la kuñ bëgg a ray ray la kuñ bëgg doo julli doo julli kuñ bëgg doo tukki doo tukki nit ñi ay jaam lañuy doon yu garaaw garaaw sax ñoo ci ne loolu kenn ku ne leneen lu la waay wax rek amul te li la koy wéral mooy ñun Sénégal dañ cee ñun dañ am ñaar ni mu mel suñu dëkk mel ko fenn jàmm yi am kenn amul parce que ñaar ba kenn toog moo tax may wax lu bari ne nañ jàngi kaamil na ñuy saraxe na ñuy laajante ji loolu moo ñu jëriñ mais yow nga gis ne Sénégal daanaka loolu nga ne amu fi te ñu continuer rek di vacciner nit ñi kon nga xam ne du jàmm loolu kenn su ko defee nag ku ciy mucc moom dana jafe la cay mucc buy am ci africain waaye du am góor ndax ku ciy mucc dana jafe ndax ku mënta mucc ci kare ba mu ci mucc. ku mënta mën mënta mucc ci orange money mënoo mucc ci compte bancaire ku mënta mucc ci tukki doo ci mucc ñoom ñu ngi ñëw te yaakaar ci ñu di ñuy dee te ñu ngi lay xaar ñu waaye nag sañ ngaa ñaan sañ ngaa moytu nekk ci àddina lëmbe ko su ko defee nag loolu du loolu kepp noonu la amee homosexualité lenn la ci lenn mbon yi moom dafa bari ñu ngi ko tuddee la leen naan jeex lesbianisme xam nga jibee ko mu am solo góor ak góor di sëy képp ku am xel mu rafet mënoo koo nam bànneex da cee am jigéen ak jigéen buy sëy lu jigéen mën a jigéen foofu yëpp dox na rek kooku nag boo ko ñëwee jàpp ne ma nga àjjana wala jàpp ne euh, ku baax na wala jàpp ne malaaka la yow yeewu africain yeewu Sénégalais yeewul ñaari dëkk moo tax ay at yu yàgg yàgg yàgg wax ñu wax lu ko fàtte mukk su ko daara ji tëjël jël mu ne Sénégalais lii problème am mooy kum gis ngay tubaab mu yaakaar ne am nga xaalis kum dégg ngay arab mu yaakaar ne jullit nga ku làkk arab ku làkk arab mu yaakaar ne jullit nga waaw ñun dañ complexe africain damay faral di wax ne su ma gisee nit ku saw max la boo xam ne drapeau Amérique wala drapeau bu mën a jëndi wala soo gisee boo xam ne drapeau réewu jàmm dama lay jënd ci saa ndax ñàkk gëm sa bopp su ko defee xeetu bon yi dafa bari homosexualité lenn la ci homosexualité li ko andi mooy dama waxoon ne si njëkk loolu mbirum xërëm la xam nga fekk néew bu dee ngay seet moom ban laa nga ci nekk loolu ñu tuddee nécrophilie am na loolu xërëm la boo bëggee xaalis wala nga bëgg daraja da ngay jëflante koo xam ne moo naan ne lii laa bëgg ci seen parti politique yi ngeen gis kii am fas kii ñu ne bëy lañ def décoration kii gaynde lañ def defar kii foog sportif yooyu mooy seen toxin li ngay dégg ñu naan toxin loolu mooy toxin parce que da ngay jëflante ak ay entité spirituelle yoo xam ne ku nekk dafa am fu mu lay këy ñu xam di manifesté wu léegi nag esprit bi mu lay këy ñëw li koy xeexaane loolu da nga koy màggal wala ne lii mooy sama toxin loolu ko am parti politique yi nga gis kii am xar kii am bëy kii am nag kii am lii yooyu teekam li ci am ni ñoom boo leen seetlee ci ci yooyu da ciy ay laaf boo ko xoolee ci marché baax te dañ ko ñunulee laaf lañ am loolu loolu aigle américain bi lay jiw ak yeneen ak yeneen waaye yooyu dafay demaat ci biir côté su ko defee nag ci njëlbeen loolu xëram na mbon la su ko defee nag yooyu mooy tax ba yegg ci ñun ñun ñooy xamul ci dara gis nga ñu koy def nii xamul lan moo ci xaalis ñu koy def loo parce que ñoom ñu koy def xaalis lañ di bëgg ak tukki ak yu yoxa daaja boo demee Europe amoo këyit boo déclaré homosexuel këyit bi dafay yomb nga déclaré ko bari na ñun daal yu mel noonu képp fii suñu réew mi ñu ko fiy def dañ koy def parce que xaalis lañ bëgg parce que loolu lañ leen ci gis ak ay poste bi mel noonu mais benn bànneex nekk ba pare mucc ba rek a ñu koy def ñu amul kenn ku ci màgget te seen moom la fekk yaa ngi dem parce que yàlla li mu def moo xam li mu ko defee moo xam su ko defee rek yeneen jubluwaay yi ñu ci jublu mooy euh, fil si bu ñu la ko injecté danañ dem ba nga a am doom bu jafe ñoom dañuy am nañ capacité defar doom xam loolu yaa koy wax yàlla lu mën jox ko jàmm. te yàlla lu mën lu ne ci jaamam la ko mënee ay sàkku doom loolu nekkul ci dara ndax niñ ko defee yomb na boo jëlee li ngay jël ci góor jël li ngay jël ci jigéen boo leen boole bëri ci benn kees matatul sax neuf mois ñu génne la comme couveur loolu muy ñëw ci kanam est ce que yaa ji ak maa ji sax bu ñu nekk ay couveur ñooñu di génne ci couveur nga xam ne dañuy télécommandé duñ am confiance duñ am foi muy ngëm su ko defee ñu leen génne ci mbedd mi di di rey ñëpp est-ce que lu doon ñoom sax yooyu daal te comme dañ bëgg a wàññi population mondiale kon faw ñu jël kon nit ñi buñ jurate am nañ bëgg a wàññi nit ñi kon nit ñi buñ jurate lii tax ma doo jur nag bañ ñu ko yàggee def yàgg na suufal si ñuy lekk dara baaxul bu yooyu ñuy lekk dara baaxul ndox mi ñuy naan lu ne def nañ ca loo xam ne buñ ko naanee nit ñi ku nekk ni xeeram ñii biir muy métti lañ am ñii buñ sëyee tey du sëy suba ñii lii moo leen dal ñii moo leen dal ñii moo leen dal loolu yëpp mu ci lekk bi ak moo tax ku utiwul tool béy ko di béyal sa bopp di lekk sa lekk bopp da ngay gën di feebar rek di sant yàlla nag lislaam am na ci ay alternatives ba tudd yàllaa ngi ci tudd yàlla mën na lu nekk tey rek maa ko benn waxtaan sëñ bi daal dafa am sa wax ni laqad jaakum ku koy jàng ci ginnaaw julli farata bu nekk cancer ak hépatite ak euh, yooyu yi tudd yëpp nee na ma doo ci am tuus dara doo waxee loy lek nga tudd yàlla bismillahi rahmaani rahim dara du la naan bu la neexee ni jox ko sax nga lekk bismillahi alladi la yadru ma'a ismi shay'un fi al-ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu alim ni jox ko sax nga lek ko tous du mujj fenn أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر كل شيطان وعامة ومن كل عين لامة boo ko waxee sa doom mbaa nga wax ko sa njaboot mbaa nga ray ta karam mu nga dugg ci bir ñi xetel di mujj fenn coow lay bari rek loolu yëpp la islam da ko fi tegal mais comme ñun gëmuñu islam moo tax ñu sonn lii moo tax ñu solo te mbir mi boo koy wax te gëmoo koy du la jëriñ dara da ngay gëm ni yàlla mooy aar nga gëm yàlla te doyloo yàlla te wóolu yàlla loolu nag ci ñun ñii la war a njëkkee tey nag ñu góorgóorlu gis nga war nañu mën a organiser organiser boo xam gis nga jullit Sénégal am nañ avantage waaye ñoo gën a miir ñoom jullit ci àddina bi yëpp moo tax tubaab yi yem mm-hmm. jullit ñi amul caricature maa ngi wax ne foo xoolee tey ku jóg dëkk bu jóg tabax jumaa dëkk bu jóg tabax jumaa bi gën a rafet sa morom nga liggéey junni nga ko sëy bi waxtaan mais ana daara yi jungur daal ñu bëgg ay daara ku maa jaar ñu ñu jël daal jaar waaye léegi sëñ yi teg seen quatre-quatre yeeg seen oto yu rafet yi ñoom buñ génnee milliards yi dem ci daara yi financé oustaz yaa ngi ñoo gën a xiif ñëpp oustaz ñoo gën a xiif ñëpp gën a mar ñëpp xiif ak mar moo tax ne taalibe yi yalwaan yàlla lay déglu te gis nga état bëggul dara état bëggul dara du mos a bëgg dara it lu mu lay def lu ne rek mu yàq daal fexe la rek su ko defee nag daara ba amatul jàngatul kon léegi jumaa yi lu muy jëriñ lan la jumaa yi jëriñ lii rek la su ko defee nag kon moo tax dafa laaj nit julli ñu organiser wu am ay association yoo xam ne dañuy dig ne ci biir catholique yi boo demee toog ma leen sax ay wëllu ci jeunes yi ngay dégg ak yu mel noonu dañuy dem dugg ci biir àll bi fekk ñu xiif ay jullit ñu woo leen ba ñu ñëw yëkkati ay millions jox leen jox leen ay yére mois bu la ñu touché leen ay saaku ceeb gars yi boo nee leen genre rek ñu ne présent jàpp dañu xiif yaakaar dafa naan ba tey daan nga ko wax nit ñi xiif nga ñëw naan ba yàlla yàlla yàlla xam nga amul solo nit ñi jox leen ñu xiif jox leen ñu lekk jox leen ñu naan nga assisté leen doon leen wax yàlla ñu loolu ñaan ñun loolu amul dara suñu daara ji sax damay gis léeg-léeg nga gis ku may xaalis lool denn ak saa boo xam ne ñu ngi ci suñu naan ngay gis dara ñëw kii ngi jënd oto kii ngi jënd vélo kii ngi sol jardin kii ngi sol dàll yoo xam ne jarul cent mille te yaa ngi dëkk saa boo xam ne ñu ngi ci bu ñu daayiraa def ay cant ba cant yi àdduna bi yëpp ne cant yee neex te yow am na taalibe yi ci biir taalibe yi ñu ngi ci sama te cant gi lu muy jëriñ yàlla moom ko def bëgg a wane wu xeexam su ko defee àddina ci nit nag boo xam ne lislam dañ ko dund te yeewu kenn la def te loolu nag dañ a wax dugguma ci cent pour cent waaye boo bëgg boo ko bëggee da ngay te sëriñ Ba nga wax keroon ne nee na lu yàlla araamal nga taxawoon ne danaa ñu ne da ngaa gëm yàlla te doo jullit te gëmoo bàmmeel nee na kuy xalaat bàmmeel di xalaat dee di xalaat dee doo fekk lu yàlla araamal nga di ko dagal nee na ku ko dagal rek doo jullit ku koy toog di ko signé doo jullit jullit ñi duñ ko signé jullit ñi duñ ko dagal ku ko signé ku ko dagalal ku ne doo jullit te lu yàlla araamal ku ko dagalal ku ne doo mën ak ñàkk xalaat kon nag lii nit nag looy bañ teel koo bañ te mu jar a bañ bañ ko te booy dee ci àll na la ngay rey loolu mooy xol booy dee ci àll na la ngay rey waaye lu dëgg moom bu yàgg leen dund te dund ko ci su ko defee ne kon loolu ñu góorgóorlu te ñaan yàlla sàmmal ñu sunu liimaan sàmmal ñu sunu lislaam sàmmal ko daa yàq ngay nga xam ne bu dajàññee ak yàqetam da ngay dàq nit ñi di leen dàq di leen dàq ba yonent bi nee na benn groupe yooyu def te ñu ne làq bi ci montagne tuur ndax dajjaal bu yàqee jamono ci laps de temps dajjaal moom ci yàq est-ce que bu quarante maa ngi fàtte xadis bi quarante jours wala quarante ans moom rek la fi def waaye day yàq jamono jamono yàq bu ay saa ñëw daf koy rey léegi ne nañ ay saa ñëw ba def dajjaal ñëw ba def ak yu mel noonu ku mu neex nga gëmee ko lu la neexee ba tey dafay rey dajjaal moom xeetu ci looyee bu ko reyee nag léegi nag yaajuj ak maajuj ci la ñuy jéem a suuf yaajuj ak maajuj fleuve boobu ñuy wax Eufrate nga xam ne toll na ni eh, dexu Ndar ñoom première partie soldat yi bu ñu xasee ba tiim fleuve bu ñu ci tëjee naan deuxième partie bu ñëwee di amul naan ndax bariwaay loolu la ñuy toppee bi ñu sañoon dañuy rey dañuy rey di rey di rey di rey ba julli ñu tuuti ci def yonent yàlla Iisaa ci boppam moom mi rey dajaal day toog naan waa yàlla boo ñu xettali bu baax lu ci solution yàlla ne ko Iisaa mu ne ko mu ne ko àndal li def ci jullit ñi ngeen dem làqu ci montagne Tuur mooy wa Tuur Siinaa boobu mu ne ko dem leen ngeen làqu buñ fa làqoo Yaajuuj ak Maajuuj ñu wër leen bu ñu leen wëree war leen faagaagal yàlla ne Iisaa ñaan leen moo tax ñaan moom solo ñu daal di tàmbalee ñaan jullit ñi fi nekk di ñaan di ñaan di ñaan yàlla yónni nag ay sax yoo xam ne buñ ñëwee ñooñu dugg ci diggante yaa ji ak maa ji lekk leen rey leen ne dee yonent bi saa nee na foo teg sa tànk foo teg sa tànk da nga na dañuy bay xëy nee na yàlla na ay picc yoo xam ne ñoo ñëw lekk leen yàlla yónni benn taw boo xam ne moo ñëw bu tawee nag daal yoo xasaat suuf si jur ñi desoon ci àddina daal di génnaat ñooñu boobu ñu ngi yàquwaat nag ci la àddina di ndax ñëw na ndax ñu ngi ci dara xam xam wax nañ si ñun kon lii teppal kon ne bu jamono lënd nee bu leen jëlee wala lënd yéen a koy leer loolu lañ si ñu nee na jamono bu ñu demee ba mu lëndëm yéen yéen a koy leeral comme ñoo koy leeral nag nañ suñu leer bi ñu jot a am nañ ko sàmm nañ ko yokk ba mën a sédd ay leer yàlla sàmm ni fas ko si sañ sax ci képpaaru sëriñ bi ci barke borom daal ñu di dégg suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon nag dañoo bañoon lépp dana wax ni su ko xaritoon jar seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.